mi ngi noonu mbokk bàyyi xel SBT am nañ mbégte ak kontaan te ñëw fii nga xam si moom mooy parcelle unité 11 yaakaar naa fekk fii xale fekk fi ndaanaan ci gox bu mu dëkk jëm nag si taakusaan gu mag digganteem ak bébé Jali mu nekk làmb joo xam ne làmb la ci biir làmb jam production moo fa jaar di nuyu nag kenn koo xam si nii mënuñu wax jam production te duñ ko tudd muy ku si mel ni euh, Mor Diouf ñu gën koo xam si Mor parcelle xaadim ànd seek ndaamali euh, champion ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Mass si dérangement bi. di ñuy sama gaay yi xam di ñuy tamit moor bu ma bool ak yow waaw di ñuy sama grand boole moom moo ma jox appartement nga xam ne ñu ngi lay seetaan te miinuñu la boo doon wax fils de Sow ak kan mooy kan mooy de Sow ak la mu wax boole ak làmb. waaw fils de Sow dafa nekk xale boo xamante ni dëpp bu muy doon ndaw la buggoon làmb waaw yàlla di def ñuy bëre di bëre ba yegg si fii nii mais ñu fenn ñu forcé ñu ne ñu dem leen bëre ji waaw. damaa doon bëri bi yow bokkul si bëri non non man doon ma bëri dama ko bëgg bu may nekk xale waaw mbokk yi bàyyi xel SBT di wax na ngeen abonné ba seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yi xam ne SBT mi ngi ko dugal ngeen mën si ànd ñun di nuyu nag képp koo xam ne rek eh, yaa ngi siiful ma Média foo mën nekk si àddina bi rek deen wax na émission tey bi noonu yéen laa ko may rawat na ñi nga xam ñoom ñooy waa PA te nekk ci àddina wër nga képp macha allah eh, fan fan nga mbapat man maa ngi génn si àll bi damay dem ay Fimela Djilor nangaan yooyu noonu Ndios man ba Fatick dem naa Diouroup tamit waaw damay wër rek. ci làmb simple ñan ñan nga fi laalal ñoo xam ne tey làmb xam na leen. waaw Cheikh Tidiane ñaar daan na ma ak kii nii euh, Gane Seras ñoom ñaar rek ma daan. Gane waaw ñoom ñaar daan nañ ma. dëgg la dañ ma ëpp doole. saa benn la woon. ah saa benn mis la woon. non non du benn mbir sax dama taara jouru làmb ji quoi waaw ma bind fa waaw waaw fi laalu woon waaw. kii la la génn. ñoom ñaar ñëpp premier tour lañ ma génne waaw. Ah, waaw waaw. non bëri na new new Cheikh Tidiane moom daanu kii gaan moom daanu ma par quatre appuis la la ma daanalee quatre appuis. dégg la dëgg la. mais dañoo bëre new comme boobu ñu rek néewal ma doole quoi dañu bëre man comme mel ni comme seen moroom la ñuy bëre waaw. say tey ñan ak ñoo xam ne laale ngeen. ñoo xam ne tey daan naa la ñu ngi ñu ngi mbapat insi nii. non booyu ma daani moom insi dégguma la mbapat waaw ñaar daal laa bëre ñoom ñoo xamante ñoo ma daan mbapat tournant fii nii muy fils de liiru bu Cambérène ak Franc Menn waaw ñoom ñaar tasante nañ tournoi ñu daan waaw. ban tournoi la daan. fii la woon interset tournoi Paul Vieux waaw. deuxième boobu premier tour la ma génne woon waaw. Franc ban tour la. Franc tam premier tour la ma génne woon waaw. ñu ngi doon SBT Média seen émission seetu mbër ñu seet si ki nga xam si moom mooy Fils de Sow Gueye ah, bokk ci làmb bokk ci xale yi nga xam si ni macha allah dafa am mbooloo buy topp seen ginnaaw ko xool premier combat bi arène xam naa du ñàkk ñëw fa wala fële Iba Mar Diop keroog moom SBT mi ngi macha allah yëngal na yëngal na keroog euh, mais balaa balaa loolu tey euh, nu mu tuddati nu ma ko mën a waxee sax euh, làmb ji ban mbër nga xool rek mu neex la nga ne mu tax nga poussé la ba nga dugg ci làmb. waaw moom moom am benn mbër boo xam dama koy xool mu neex ma mais dama daan gis gars di bëri fii nii ci école bi ñoom Modou Lo ay ñoom bay pël école école bii nii ñu room ñoom fa lañ dem bëree ñu looloo tax ñu bëggoon bëre quoi waaw. waaw. Modou Lo Baye Fall ñoom ñoo si sax mais xam nga rek toog di leen seetaan ni moo tax ñu dem ba doon mbër mais néewul loo xamante ni dañ leen fan wala leneen bërëb moo ñu neex rek waaw. ban mbër man Modou Lo moom moom Modou Lo xam nga ñu lañ dëkk te parcelle daanaka ñëpp ay Modou Lo lañ waaw. combat Modou moo la gën a moo ëmb seen bu njëkk ba waaw boobu damay toog di ko seetaan. combat boobu noonu lépp lu si am daf ma neex quoi billaahi ba pare da doon daw sama yaram waaw. kay laa bëgg xam nga. Hmm? lu tax muy daw sa xeex xam nga te loolu ba ñëpp di yuuxu loolu dafa neex billaahi loolu mbër bugg a seetaan sa yaram war na daw ku ne bëgg na am bis bu mel noonu waaw. SBT Média la ba tey dégg ngeen fi waxtaan bi toll macha allah fils de Sow Gueye sa premier combat arène yaakaar la woon. woon ñu tuddee sax. Ka Ka Cissé numéro 2. Mhm. waaw. ni ngeen ni ngeen bëree ñaar ba arbitre dafa sifflé ma dox si kawam mu sànni ma góos ma sase ko dóor ko mu dal ko mu siggi ma dem plaqué ko waaw. mu nekk seen mbooloo mi la. waaw mbooloo boobu noonu xama rek jox ñëpp cër kese la boo rombee grand frère yi jox leen cër say àndandoo yi say xarit yi ñëpp ngay jox cër ak booyu yi waaw. ñu gis Mbër mu premier combat bu ñëwee day xaw a patiner affaire yooyu nga ñëw keroog mel ni koo xam si def nga ay cinq combat. waa dëgg la xama rek ni moom boo entraîné ba pare am am gëm-gëm dara du la téye keroog nag gëm-gëm lañu indiwoon ak entraînement bu doy. simee ko dongali dongaliwaat mbooloo mi yuuxu nga waaw xam nga rek xam na nag say adversaire sa mbooloo ñoo ko war a njëkk daanal waaw mbooloo bi ñoom ñooy njëkk daanal adversaire yow nga ñëw mottali kere na booy loolu lañ def. yëngal ci kaw nga yëngal ci suuf. waaw loolu la booy dañoo daan ci kaw ma daan ci suuf waaw. si combat bu xale boo xam ne ñëpp dañ ko fee bàyyi kenn ñi mu jël avance nga dem jël ko lan moo tax loolu. waaw dama koy freiné si. man moom damay yàqal booy ku dem moom bul ma jël. waaw. adversaire bi nga jógee non mais man ñëpp laa yemale boo yëpp benn lañ ci man waaw ku nekk nu ma la bëgg a def noonu laa lay def kenn tëw ma xanaa yàlla suñu borom moo ma të mais booy yi nii jaaxaluñu ma sax. kon sa diggante waaye booy incha allah ah. Bébé ma koy wax ah. na dëggal boppam bu dëggalee boppam nu mu def day daan bu dëggalee boppam nu mu def daan. dëggal lan. bañ a daw arbitre ne prip bu ne bu arrièreul ñu tase ma daan ko incha allahu mooy woo nga naati guxum soo ndax moom nee na moom li mu bëgg mooy yow bu arbitre bul jékki sa tànk benn jëm ginnaaw taxawal dëgg sa bopp. mais booy xam nga booy des fois dañuy toog nii di wax di neexal xam nga gëmuñu lu ñu wax mais lu may lay wax ni man dama ko gëm bu arbitre sifflé allah ah yàlla may ma jàmm rek gisuma lu may teree dox si kawam. nee na nee na nee na nee nga xam ne yow làmb si yónneeku si. waaw moom moo soob rek dugg si. moom lu la wax nee na moom ay nijaayam ay maamam baayam ñëpp ay mbër la. waaw même mbër la. man du ma doomi mbër te maa ko gën a doom mooy la moom yow la 20 mars ngay comprendre dina dina def loo xam ni yow da nga xam ne làmb nag bu 20 incha allah. laa ngay wan. affaire yi du ay maamu mbër du nijaayu mbër. maag moom la man aw ma nijaayu mbër aw ma maamu mbër maam moom kese la incha allah te ay nijaay ay maamu ñoom duñ dugg si géew maam moomu dugg si géew bi hmm? waaw. moo tax nag bu yowoon na def naa ko de. kon su la déggee da bëgg fi mu le 20 mars nga samp jaaga xeex ak moom. bu bëggee xeex ñu xeex bu buggee bari ñu bëri làmb ji si moom la dépendre. kon yow làmb ji dépendre jox raison benn côté parce que yow nee làmb ji moom li fi war a am lépp moom moo koy def. non moom bu nee naa leen démb bu bëggee lu yomb moom si moom bu arruiné prix rek mu toog te loolu bu ko defee sax naa fekk foofu mbéj ko bu defee loolu. naa fekk fu mu toog ma daa ma bu xasee ba daanu moom règlement bi moytu la nga laal. non ma la wax dama la ne lu yomb si moom. lu yomb si moom mooy loolu. arbitre ne prix mu toog moom mbéj ko mu dem. est-ce xam nga ko moom. Bébé Diallo xaw ma ko. xaw ma ko boo xamoon Bébé Diallo doo nii. non man di nga man ma xam la ma ñàkk laa xam man sama gëm-gëmu bopp laay demee waaw noonu la fa demee. mais damaa xam ngay dajal de. la kay. parce que seetaan naa benn combat waaw mu faqasalu daan booy bi daa faqasalu daan booy bi waaw ah, booy bee ko ëñ muy topp booy bi booy bi arrière tànki kal si ginnaaw saako yi dafa jàll itam moom faqasalu dal si kaw booy booy bi toog noonu la ko daane d'accord <laughs> mi ngi noonu du samay wax waxi ki nga xamante ni mooy fils de Sow Gueye la boo jël du samay wax de dégg nga ne sa victoire bi da ngaa fakkotal ba dal ci <laughs> mi ngi noonu mais laamu jaay noonu ah le 20 mars la jam production moo ñu foo ci diggante ki nga xam xamante ni moom mooy fils de Balla ak Gora Sock waaye combat bi nga xam xamante ni mooy combat spécial bi muy Kaaw Gourdin ak ki nga xam si ne nii moom mooy Ronaldinho bu bu bu Tëngéej mu nekk làmb joo xam làmb la ci biir làmb ndax yaakaar naa ne euh, waxuma la Ronaldinho bi sax mais combat fils de Sow Gueye ak Bébé Diéner yaakaar naa bu ñu ci woon amaatee ne mooy grand combat bi war na tax ñëpp bàyyi seen yitte yëpp ñëw ndax ay xale lan am na fu toll ci làmb rawat na jeex jàmm ak ki nga xam si ne moom mooy su lay gaynde numéro 2 làmb la ci biir keroog le 20 le 20 du yomb de. non le 20 mënul yomb sax parce que xam naa gars yi yëpp ay ñëw yaa ngi comprendre sama booy tamit kenn du des mais mécanicien dóoru yi boo yëpp a ngi waaj lenn rek a ñu war lenn seen ñu manqué quoi na gars yi ñëw jàpp si combat bi Ndao mu ngi jàpp bu baax maa ngi koy sant di ko gërëm démb si guddi la fi jógee yaa ngi comprendre bi moom tamit mu ngi soog a ñëw mais na si jàpp di wax gars yi nañ ñëw jàpp si combat bu baax parce que booy mooma ah, boo leen jëndalee ticket rek yaa moom stade bi te man ins bii nii gars xam nga ku ñu jox ñaari bolok ba ñett bolok bëgg neen Ibamaar de arène nationale nga pour nga sa mbooloo génn day yomb waaw mais arène nationale fee. moo tax na ñu moo moo tax na ñu bëgg ñaari bolok ba ñetti bolok lu mu ndaw ndaw. waaw noonu la fa demee nag moo tax xoolal gars yi nañ ñu jéem a jàppale ñu am ñett bolok rek incha allah parce que xam nga affaire yi dafa métti bolok yi dafa seer. mais ñun nañ si jéem a am ñett rek incha allah moom stade bi. li mu wax nee na yéen ñaar ku gën a sonn ci làmb ji ku gën a nekk xale képp mbooloo ku dàq bëri yàlla yàlla may na looy doon. waaw kon man gars yi bu yóbboo ngeen jubilé parce que insulte daan naa ko quoi nañ man daan naa ko maa ëpp mbooloo gën ko nekk xale dàq bëre ëpp ko seen seen waaw maa la wax loolu. est-ce que bi ñoo ngaat ngeen teg seen reliquat yi ñaar ngeen taxaw ngeen bapat boo bëggee dégg dëgg tey ji ma wax la man sama combat bi nii lu ma si entraîné wax dëgg fa neex yàlla boo laajee booy may àndal entraînement dama leen koy wax man sama xel ñëw sa si combat maag Bébé Dialy mais ins la moo tax may entraîné bu ma korité ba pare dama war a dem àll ba dama war a reyante ji moo tax may entraîné mais pas bu dee fekkoon maag Bébé Dialy kase la du ma entraîné fii laay toog di calcio bu guddee ma jënd sama ginaar naan sama soo tëdd déggoo lu ma la wax rek ma ne ah. lu tax may entraînement nii ah. bu su ma koritee ba pare dama war a dem àll ba ah. mais bu deen maat ba jali kase combat boo kase kase la doo ma fenn duma ma entraîné fii laay calcio bu guddee ma lekk sama ginaar naan sama soow tëdd waaw moom boo mënu laa dara dara fu mu teg làmb ji moo dul foofu si gàllaaj si gàllaal la teg xale bu ndaw entraîné am doole gisoo dem ñu entraîné ñaq bu dafa yëngutu rek ñaq tooy xepp comme moo ñaq ba jale toog di weex nga ne ma ñaq ko ni di ñaq moom mi weex da doon weex yow gisoo bébé jali de borom sam-sam ngay waxal hmm, moo borom sam-sam fan fa toog gisoo kana ju nga ko jënduloon sax mënu ko naan booy wow noonu na dem liggéey te seeti feneen hmm? na dem jële ji ay buusire booy ay Laurent mook ñooñ la du maag moom na jël booyoo ñoo ñooy moroomam ay Laurent ak Boussita ñooñ ñooy ñooñ ay moroomam. ñoo ëpp combat déjà. Laurent ak ñoom waaw Laurent ñoom ñaar ñoo ëpp combat mais du ma seen morom. non non ñoom moroomu Bébé Diallo lañ. ñoom làmb gën a xam fi doon man làmb dafa ma xam de. non non mais actuellement fii. Hmm. yaa ak Laurent ngeen ànd. Laurent la ñuy gën a xam ko yow Boussita lañ gën a xam ko yow. combat bii nii lépp dina leer incha allah ah. waaw. mu bëree bébé jàll ba pare dina xam samay moroom leen wala duñ samay morom damay daan bébé jàll jox leen ko ñoom ñaar ñoom ñoo mbër yu ndaw waa kay waaw. 100% parcelle bi ci gis maa ngi ci sama bopp bu baax kay waaw des fois di nga tasante yenn grand yi sax xam ñu xëti la suluku waxtaan yow jéem la teg ci axe di la wax lu baax di la tere lu bon waaw. parce que mbooloo. ak Fils de noo ko waaw xam nga fii lépp parcelle la incha allah Fils de Balla bu ñu waxantee dëgg Gora Sock du moromam gars yi dañoo war dem di seeti seen morom yaa ngi dégg Gora Sock moom mun dis Fils de Balla Gora moom taakusaan ah, gu yàggul dara diggante ma général Malick baat ak tontu général Malick ak Gora Sock bokkuwul Gora Sock mën ñooñ ñëpp moo la mën moo la ëpp doole ëpp leen fit combat bi ñoom ñaar ci xeex waaye bu ñu xeexee Gora Sock da koy dóor mu daanu bu ñu xeexee Gora Sock da koy dóor mu daanu. kon Fils de Balla lu am ci combat bi. amu si dara moog bébé jëlee yam combat yi amuñu si dara waaw. jërëjëf de Balla ñëw na seen seen mbër mi ñëwul de Gora Sock. xëy na daa am lu ko téye rek moo bu ñëwoon tamit Fils de Balla lu mu taxaw foofu noonu sax du fa taxaw day dem toog ruux rab waaye tapet la ñemewu ko de day toog foofu di xaanju rek maa la ko wax. Baal dafa tàppat kan. dafa tàppat góor a soog. yëpp nee nañ góor moo tàppat parce que boobu ba léegi ñi mu ñëw face to face ñi mu dara. mais bu ñëwee kii fils de Balla gis ko fils bi dem mën na delloo avance bi moo tax baaga muy làqatu boobu boobu rek incha allah fils ba góor a soog bu ñëwee fils ba ba fils de Balla gis ko mën na ti delloo avance bi mais baa ba ba jour combat ba mu ñëw rek yéen comprendre woo leen de. loolu toog ko xam. voilà moo tax mu toog. parce euh, bu ñëwee day yóbbu fiti saaxaay kon day bañ la may combat bañ am daal te saa fit bi bu demee day jël làmb ji teg ko si gàllaat moo tax nanguwul ñëw mu toog rek nopp bàyyi ko si na wax jàppale macha allah te ku xool combat nga jógee am na si jàpp macha allah combat bi nga jëm nii am na ñoo xam ne ñu ngi ciy jàpp am na ñoo xam ne war nga leen woo ñu jàpp si te nag SBT seet si la ñu bàyyi la nga woo sant ñi nga paase woon jële woote ci combat bi sant ñi nga xam jot nañoo dugal dara te gars yi nag ngeen jàppale ko xale la te te ndaanaan la macha allah te bu jógee bari bi teg na ko ci lu wóor euh, nu ba ba jëli am nga combat de adversaire yi daan am ak booy bi nga am nii du benn de waa looy di sant rek comme bee passé ñu ñu si jàppoon ñoom Vieux ñoom Lo ñoom Ida Thiam ak alfa xama nga gars yi bëri jàpp nañ si surtout sama booy nii jàpp nañ si jàpp bu am doole quoi bii tamit maa ngi woo tamit ñoom Vieux Ndaw ñoom Alpha ñoom Ida ay ñoom moom Maodo Ndaw ñoom Père monsieur le maire bu bees yi ak per Bokar Bokar jëkkëru Anta maa ngay woo jàppoon na si sax mais xam naa na si dolli tamit ak per Cheikh père père Moussa Fall quoi waaw maa lañu woo ñoom ñëpp ñu jàpp si combat képp ku ma limul rek dama juum ndax nit matul bu dee tamit dañu wax lu ëpp ñu ngi jégalu waaw. ñu ngi la ñu woo di leen béggee ñoom ñëpp waaw gars yi dañuy ñëw gars yi duñu xaar ku leen woore parce que 100 pour cent bi la. duñu xaar kenn ñu lay woo bu bis baa ñoom ñëpp dinañ teewal seen bopp incha allah waa waaw Bébé Diallo lu ma koy wax rek na dëggal boppam bu bu dëggalee boppam arbitre siffle combat du yàgg te lool loolu xam nga loolu boo ko defee kenn du la dagg abi ne prime nga daanu loolu kenn du la dagg rek. national xam ne non violence bi te gis nga fan yi règlement yi mooy sa supporter bu ci benn si dañee sa reliquat doo ko jot non seulement dañ la aj ban message laa waaw man samay supporter ñoom xam nañ bu baax lu ñuy def ak lu ñu warut a def ndax ay mag yu jëm lañ waaw ñoom du duñu yàq boo xoolee combat bi passé macha allah ñoom ñëpp ñëw nañ mais yàquñu defuñu dara ku ne la dëj fa nga toog yaa ngi moo tax ma la ñu wax ñoom tamit ñu gën a yokk doole yi moytu caaxaan yi quoi. waaw bëgg ngeen mbër am na loo xam ne war ngeen koo def di seen mbër carrière waaw noonu la fa comme lu ma la wax ñoom ñëpp xam nañ lu ñu war a def ak lu ñu warut a def ak mag yu jëm leen waaw gisagoo fi benn mbëru passé bu yóbbu ay supporteurs am ñu yàq siège incha allah du mus a am waaw. da ngay lancer message non nga xam si ni supporter bu ñu génne wala ci buntu stade bi xeex bi ñuy def. waaw loolu loolu ma la ñu wax mooy nem bàyyi loolu noonu que yow tey boo génnee tasanteel kenn gaañ ko après kooku day sonn ji mu dem faju ji wala yow ñu gaañ yaay sonn dem di faju ji comme biir stade mu ngeen toog yuuxante def lu la neex mais bu ngeen bu jeexee rek jeex na. parce que ñu ñëpp benn lañu ndam li génnul dem Côte d'Ivoire demul France Sénégal bii rek lay des waaw. ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom fils de Sow Gueye ah bokk ci làmb macha allah di wax na rendez-vous le mars incha allah arène nationale ak jam production loolu du yomb de drapeau bi su ngóone drapeau soxna ayda waaye drapeau les seen reportrices ni ñu koy waxee ñoom pël bu rafet ah jigéen ñi nga xam ñoo nekk ci làmb ñëpp di yëngu ci làmb muy diggante su lay gaynde ak ki nga xam si ne nii moom mooy euh, euh, nu mu tuddati champion bi borom Grand Dakar euh, jeex jàmm xaw ma nag jàmm ni si koy jeexee waaye làmb jooju làmb la ci biir làmb waaye combat bii na ko amateur bàyyi xel fii de Sow Gueye Bébé Jali le 20 mars SBT Média arène nationale aja